asalaamaaleykum état bu Sénégal alors tey ñu am mbégte ñu xam ne bëggoon nañ leen fi dalal bi yàgg ak Akatsuki depuis seen début bëggoon nañu waxtaan ak ñoom te ñu seet suñu nouveau génne benn projet boo xam ne nekk PA universel quinze titres boo xam Sénégal salaamaaleykum àdduna c'est Talla Beauty Bee from Akatsuki SN salaamaaleykum everybody salaamaaleykum Sénégal. ci Sori l'officier from Akatsuki SN. yeah salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna képp koo xam ne yaa ngi seetaan émission bi Element Xel Ñaar Akatsuki SN. salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum waa Sénégal xalil la xel mu sell ak Akatsuki SN Néegu Rap Music sama chaîne pare suuli nigga si biir clan man maay seen pesti chaîne bu leen di consolé ngeen si station ngeen di consommé dama tàng ak suñu décongelé rappari di jaay tàng laay surgelé comme grand pi foog ay ose foog ay grand mur rouge dañuy waxtaane jigéen bu mosul hip hop jigéen ma du ma wadd mais bon genre tey dañuy def émission boo xam ne c'est pas góor ñi mën nañ toog yi jigéen ñi laa bëgg a pousse ñuy déglu Akatsuki su ma ngeen di euh, son boobu ni ngeen gisee ampleur bu mu après seen seen première son bon xamoon nañ ni su génnee dina def dara mais xamuñ woon ni dina egg fu mu egg yëpp quoi loolu mënuñ si woon xam dara donc euh, dafa jékki-jékki rek ni ñëw Euh, mu doon lu ñu bett mais loo xamante ne aussi dañ si kontaan bu baax a baax parce que artiste bu yëpp artiste bu nekk defe naa ne loolu ngay ñaan si sa carrière li ngay def di ko def si suuf nekk sa studio di tëju di lëlu di ko def mu génn wër àdduna loolu ngay ñaan donc bu mu wére di wëree donc euh, ça nous a mais dafa doon loo xamante ne mbégte la daal et lu ñu yàggoon bëgg la. waaw mm-hmm. ngeen gisee sénégalais nuñ ko jëlee surtout jigéen ñi di gis TikTok nañ ko euh, refrain bi ñëpp reprendre nañ ko loolu tamit euh, lan ngeen ko gisee aperçu bi si sénégalais yi am. waaw kontaan rek parce que quoi qu'on puisse dire fu mu egg yëpp sénégalais yi moo tax mu egg fa franchement. parce que ñoom ñoo ko partagé ñoom ñoo ko nekk di commenter ci Twitter xam nga Instagram di ci wax di ci wax mm-hmm. donc ñoom daal franchement amuñu seen fay quoi ñoom ñoo tax wéri di egg fu mu egg ñoo tax Akatsuki nekk fu mu nekk tey Euh, loolu yëpp sénégalais yi la. si rap c'est pas évident comme mun na nekk tamit nga génne benn single après cartonné. Euh, tey am nga génne benn single cartonné après gars yi dootuñu la xamaat wala nga def benn pause mais yéen ba single boobu mu jàllee def ngeen benn break expliqué ngeen ko ci plateau yëpp duñ ci ñëwaat di di ci indiwaat di waxaat lu ñu waroon comprendre nañ dem si yenn plateau yi comprendre ko on va parler de bi ngeen am mais projet euh, avant avant projet bi di génn génne loolu ngeen ay single amoon na ay single yoo xam ne génne woon ngeen ko mu ngeen ci ñëwaat am waaw waaw parce que ku nekk si ñun ñii dafa nekkoon ci carrière solo woom di gérer carrière solo am di def ay video ay son de temps de temps autre que ni euh, mi ngi doon évoluer ci côté wam quoi mais après vu que dañoo dem ba ci biir ñu gis ni parcelle war na mën a am benn assurance bu dëgër si lañ formé groupe bi pour juste pour faire benn benn benn compilation collectif ou album pour parcelle te moom lañu nekk di eggali nii ba léegi moo tax ñu génnee album yi nga xam ne mi ngi tudd Pied universal mais single yi euh, choix nan ngeen ko choisir balaa bon naturellement easy dañ doon toog studio am ay beat filip mooy ñëw balancer ñu ay beat ni ñu ay ca déglu leen bu dee fil ngeen ko ñu def ko. Euh, titre yi aussi c'est venu naturellement da ngay gis benn fait boo xamante ne moom la nit ñi di dund nga wax ko muy comme ay tekki ay koona euh, ay crush ay ay affaire yooyu moom waar mii nii sax. du coup da ngay gis loo xamante ne moom la nit ñi di dund après nga ñëw wax ci dóor si li nga xamante ne moom la moom la moom la ñëpp di gis juste pour dégager aspect négatif yi ak positif yi quoi. alors Akatsuki dafa ñëw ak originalité. drill ñu bëri xamuñu ko woon ngeen ñëw imposé ko déjà est-ce am ngeen ci mbégte déjà satisfaction bi ñu imposé dara loo xam ne booy bi ñu leen invité ci émission dañaan doon defal benn drill te duñu comprendre sax ñëwaat leen ñu ci drill lan ngeen ko xalaatee ba def ko ci benn premier son après ngeen imposé ko rap Galsen waaw bon comme ni ko gars yi waxee ci yeneen plateau yi rek bon mën nañu wax ne wéredi mu nekkoon dernier drill bi ñu nga xamante ne enregistré woon nañ ko mhm. donc moo nekkoon première freestyle première son bi njëkkoon génnee tamit ci projet bi quoi mhm. donc voilà bi mu génnee def na dara parce que ñi doon def euh, Euh, bu ñi nekk ci àdduna bi yëpp bu ñu doon référé woo ci côté drill côté Sénégal donc si ñun lañ doon référé woo donc voilà quoi yàggul dara sax euh, gisaat na gars du ci communiqué waat quoi donc mën nañu wax ne drill boobu noonu tey comme buñ ne Sénégal rek ñun lañ siy njëkk a xalaat donc mën nañu wax ne tey ñun ñoo nekk ci tête bi. liste bi bu amoon list dañ naan ñun ñoo nekk ci tête bi c'est pas dama koy wax pour ego trip wala pour bàkku mais au fait loolu la lool lool loolu la kii wane quoi donc ñi nga xamante ne tey ñoo nekk a waaw ñoo nekk à l'extérieur yëpp xam nga bu ñuy bàyyi xel drill Sénégal ñun la ñuy ñun la ñuy ñun la ñuy ñun la ñuy wax quoi mais c'est pas que dañuy toog ci drill bi rek xam nga buñ la étiqueté benn affaire nag il faut nga sàmm ko foo nga sàmm ko téye ko bu baax mais c'est pas que dañuy toog ci drill rek xam nga que am na yeneen xeetu musique yu ñu mën a def quoi. Mm-hmm. moo tax wane ngeen ko ci ci loolu ko génnee benn son la. Mm. xam xam nañ ci mën a way xam. <laughs> Euh, son bi dafa mm. est-ce que da ñëw rek ne son boobu ngeen koy génnee pour changer un peu wala. non xam nga ñun déjà dañuy demee feeling. film la ñuy demee quoi nekkul dañuy jékki-jékki rek forcer benn affaire ne dañ koy def jusque doo ñëw studio ñu toog ñu déglu beat bi ñu commencé liggéey ak ñu ne waaw pourquoi pas génne lii parce que instant boobu aussi soxla nañ pour toucher ñeneen parce que am ñoo xam ne nekkul rab bi kese kese kese kese kese si la ñuy yem nga soxla nga def beneen style musique pour essayer toucher beneen public te am nañ benn public boo xamee ay jigéen lañ dañuy suivre te genre sound yooyu force da leen neex après on s'est dit pourquoi pas ne pas le faire parce que am nañ talent ko en fait dafa bette ñu bëri parce que ñu bëri dañu yaakaar Akatsuki day ñëw clash wala day ñëw def leneen non non on dañuy def leneen te moom moment boobu juste loolu la laajoon quoi après on l'a après gars yi bëgg gars yi ko aussi nice quoi mooy loolu. <laughs> d'accord octobre bi passé. Mhm. Euh, ngeen toog xalaat si mais c'est le moment pour génne. bon déjà album bi moo nekkoon objectif u daje Akatsuki moo nekkoon objectif wu taxawal ak Akatsuki parce que depuis 2019 bu ñuy job dañoo doon job ak ambition wu teg album génnee album donc amoon nañ tour bi titre bi lépp tu vois mais xam nga yàlla moo def ci yoon bi xam nga wéri di egg fu muy egg mm-hmm. mais ba tey teggiwuñu sunu bët ci sunu yoon bi nga xamante ne moom lañ tracé woon donc suite logique la rek ñu dem ba ci biir war a génne album c'est une suite et c'est une chose boo xamante ni on l'avait prévu depuis le départ mm-hmm. ouais et peut-être dañoo toog ba voilà gars yi xalaat nañ ci date bi xalaat nañ ci sortie bi ni mu war a demee et voilà ñu trouvé 15 octobre c'est la c'est la date boo xamante ni jàpp nañ ni mooy date bu porté pour album bi génn vu que attente bi yàgg na mm-hmm. parce que bu wéri di def buzz c'était octobre 2020 ba tey octobre 2021 donc def na un an donc attente bi yàgg na donc moo tax ñu génnee ko. Mhm. public bi nan la accueillir album bi parce que am na yenn clip jot a génn ci album bi public bi nan la ko accueillir. waaw bon man moom franchement retour yi ma gis yëpp si que ça soit si net bi ak que ça soit ngay dox si mbedd bi dajante ak nit ñu lay wax ay retour yu positif la franchement les gens ont vraiment apprécié l'album parce que gis nañ si beneen niveau en fait parce que ñu bëri comme ni nga ko waxee ils pensaient que Akatsuki day ñëw day rap drill rek mais ils ont vu ak euh, euh, album bi am na ay thèmes yu intéressant xam nga am na ay thèmes yoo xamante ne si yeneen style de musique la tu vois ils ont été un peu surpris et ça les a vraiment fait plaisir donc dañu koy wax ci net bi da gis commentaire yi gars yi di ko wax da nga gis aussi si mbedd bi nga desante nit ñi gars yi di ko wax donc gars yi apprécié nañu album bi bu baax a baax franchement

Universal sa venait genre parce que dafa demoon ba benn instant dafa amoon ay leaders yu fa nekkoon comme ay ay rescapé ay Alienzi ay Cosa Nostra ñoom ñoo doon ñoom à un moment donné rap Galsen daana woon wax te doo tudd seen tour mm. foofu la nekkoon waaye parce que gars yi nga xamante ne daan bu ñu bëggee dund rab rek parcelle lañ daan ñëw dem par exemple ci ci ci euh, tali unité 11 bi noonu am na benn bayal bu fa nekk gars yi fa lañ daan daje di def ay saay fa mais léegi dañoo dem ba benn instant affaire bi commencé réer ñooñu ku nekk euh, genre nga gis ñeneen di juge si beneen yeneen secteur di jug. comme ay Médina commencé am rab rap Guédiawaye commencé am rab ñëpp fa lañ daan dem di di di di fréquenter mais en un moment donné ñun tamit dañoo demoon ba ne foog ñun ñu génne benn affaire boo xamante ne purement parcelle Assainies la pour parcelle jugaat la léegi loolu waral ñu ñëw jël projet bi tuddee ko pied universal pour pour que parcelle Assainies revienne à l'ordre quoi mu nekk universal partout waaye waaye mais bon yóbbu ko yóbbu ko fépp ci àdduna far yàlla def parcelle wër àdduna quoi

luy Parcelles Assainies définition Parcelles Assainies lu ñu assainir daggante ko def ko ay nii donc àdduna bi tamit noonu la mbir da nga koy daggate rek lu ne nga jox ko waalam <laughs> lu ne danga koy daggate jox ko waalam soo duggee si projet bi daggate nañu àdduna bi am na ay son yoo xamante ne dafa spirituel tu vois mën nga ko déglu nga yokk sa spiritualité am na soo xamante ne da lay jàngal nga yokk sa xam-xam am na soo xamante ne da lay da lay bougeloo mën nga si def voilà mën nga enjaillé wu xam nga def sport xam nga donc noonu lañ ko parcelliser en fait parcelle pied universal donc nu ñu dajale noonu daggate ko def ko ay parcelle na universal rek wuyu turam quoi ñëpp jël seen waal ñëpp nañ jël seen parcelle en fait yow yaa ngi nii crèche mooy sa son yow crèche da nga ko bëgg danga nga bëgg crèche <laughs> crèche bu ci la ñuy nag mu nekk damay seetaan instant yi du benn coow bon li may yokk ci li taala wax rek mooy que ni bon avant ñuy avant ñuy ñuy commencer enregistrer benn son avant ku nekk si ñun di teg benn mot amoon nañ turu projet bi ba pare. voilà quoi te xam nga doo commencer benn affaire fekk kenn xamu la nit ñi dem ba xam la après nga bokk koo changer voilà loolu day mel ni da ngay trahir sa bopp wala am na loo loo loo bàyyi quoi mm-hmm. loolu moo tax ñu rester fidèle ci tur bi ba léegi.

tey jii quatre quatre quatre quatre quatre style ngay am quoi yoo xam ne dafa dafa différent ci ci ci groupe bi quoi tey Khalil am na particularité boppam foo gisee Khalil ñu ne la non il est sale loolu en terme d'écriture la quoi. il boo dégloo gars yi danañ naan non waa ji il profond affaire yooyu noonu. sóori sóori bu la jàppee moom da lay wëndeel. ba nga ba nga ba nga ba nga miir mu kaañ la bàyyi la nga dem xam nga. Euh, taala biti bi soo xoolee moom la gaa yi di wax imaam mais non du ibaadu quoi wax dëgg non xam nga mhm. euh, saay moom la ñuy wax ibaadu mais xam nga dafa xaw a doy waar dafa xaw a doy waar quoi mais gars yi ku nekk ku nekk am nga sa sa sa sa sa tuusu bopp boo xamante ne tey moom nga def ci album bi ba soo xoolee loolu mooy force album bi quoi mhm. ban mm. euh, su ma leen doon wax trois sons yu leen gën a marqué ci album bi ku nekk wala quatre peut-être quatre quatre sons yoo xam ne tey album bi euh, ku nekk choisir nga ne bii mooy sama morceau. quatre sons ku nekk. waaw non kenn ku nekk na wax benn son comme quatre ngeen. waaye man damay choisir Koona mm. <laughs> eh, ko. sax en fait Koona pour man mm-hmm. réalité la quoi parce que. son bi à chaque fois su ma koy déglu damay sentir ne man lii laa dund quoi lii laa dund. est euh, parce que maa ngi naan yeewu gàddu kay ak biig njëkkante karapit fii mooy dund géro life zéro garantie diplômé diplomate teewul ñoo ngi au chomage da ngay jàng ba dee rek jàng ba des ak say kayit kayit bi soppaliku xaalis not sa naf su ngay gis. en fait loolu c'est réalité parce que may doog a am bac loolu laa doon dund da ngay një daw dem njëkkante joor pour dem université jàngi përëti përëta xam nga ñu ne la boo boo jàngee ba pare boo amul boo am boo tant que jàngoo si life doo si génn te gisee ñee ñoo xam ne jànguñu ñi ngi si leneen di liggéey pourtant ñi ngi si génn alors kon dama muy bind texte bi dama gëm ne système bi moo ñu moo ñu genre moo ñu képp foofu noonu quoi si benn affaire boo xam ne c'est restreint mm-hmm. da ngay dugg université nga gis ñu bëri maanaam dañu bëgg a jàng ñoom ñëpp si lii kese lañ bëgg a tekki te pourtant ñu bëri ñu ngi jàng mais am ñoo xam ne bëgguñ ko maanaam seen vision mi ngi si leneen mais peut-être que société bi moo leen tënk si affaire boobu noonu ba mënuñ def li nga xam ne moom lañ bëgg a def en fait ci ci boobu laa nekkoon loolu laa bëggoon expliquer moom su may déglu son à chaque fois dama ciy gis samay comme ça samay morom yu bëri yoo xam ne si loolu la ñuy dund ak gars nga xam ne si nawetaan bi lañ nekk xam nga période nawetaan ba nawetaan la ñu nekk seen i staru ñi nga xam ne xam nga jaay boon wala affaire de drogue mooy tax ñuy ñuy dund ñuy dund si koñ bi en fait mm-hmm. son bi su ma ko dégloo damay gis comme ça live jeunes yu bëri. moo dama ciy gis sama bopp mm-hmm. ah, man moom xam naa moom euh, Edo Tensei quoi laay wax. Edo mooy mooy renaissance. benn son la boo xam ne tey euh, c'est spirituel quoi. Mm-hmm. et que non du du sax en fait boobu dama ko doon yëg waaw dama koy yëg même bu ñu boo koy déglu bu ma koy déglu dama koy yëg carrément quoi dama ciy nekk ba léegi benn son boo xamante ne tey ñu ngi ko ñu ngi ko enregistré ci weeru koor et ça parle de de Dieu ça parle de l'âme de l'esprit xam nga mu nekk son boo xam ne dama ko bëgg quoi wax dëgg yàlla Edo Tensé yeah man moom man moom euh, su may jël ci son yi tekki laay jël quoi tekki tekki comme son nom l'indique euh, ci lépp loo mën a nekk ci live war a gëm sa bopp gëm ni tôt ou tard euh, ci li ngay ñafe da nga ciy génn. Mm-hmm. muy jàng beeg muy bëre beeg muy football beeg muy lépp même ba ci biir rab bi nii aussi ñuy def ñu ne dañoo gëmoon ni tôt ou tard ñun dinañ ci génn quoi mm-hmm. muy certes peut-être eggaguñu yenn niveau yi nga xamante ne bëgg nañ ko egg mais ñu ngi xës la ñu ngi xës la ba léegi ñu ngi ci à chaque fois chaque jour dañ ciy gën a nekk juste pour gën a mën a euh, feeñ ci écran yi quoi c'est ça tekki. waaw man moom sama son préféré ci projet bi mooy Edo Tensei quoi. pourquoi Edo Tensei parce que Edo Tensei du dee. Et le TNC, c'est la renaissance. Et je pense que c'est la mission sur Terre. C'est la seule et unique mission sur Terre. Mm-hmm. donc son bi dafa boole alxuraan dafa boole bible boole li yonent yi fi jaaroon wax boole li nga xamante ne loolu la yàlla junju tu vois boole li nga xamante ni moom la yenn nitu yàlla yu wàcc yu bëri doon junju seen askan. ba mm-hmm. pare doon leen tàggat ci loolu. donc c'est la renaissance c'est une chose boo xamante ne c'est carrément deep et c'est une chose boo xamante ne da nga koy dund chaque jour. doo si mës a wàcc tu moo tax c'est mon son préféré en man nag son bi ma gën a jaaxal ma gën a jaaxal crush la <laughs> nga ne crush la tudd mais man cagala loo laa si dégg comme ne si clash xale yi jigéen ñi bon parce que def na bruit def na quand même son boobu pourquoi. bon. son boobu du ma ni clash la pour xale yu jigéen ñi. non non du clash tu sais pourquoi parce que suñu si defoon featuring ak jigéen su boobaa su tegee couplet di nga ne clash na xale yu góor yi donc crush tout catégoriser wuñ ko tuddee ko nangam laa loof <laughs> parce que nangam loolu noonu la <laughs> nangam laa loof boobu noonu jëluñu ko rek dëkkee dëkkal ko ci jigéen yi kase tu parce que jikko la boo xam te ne da nga koy gis ci góor comme na nga koy gis ci jigéen donc jigéen su dégloo son bi mën na ko fàttali peut-être benn copain boo xam te ne noonu la mel tu vois moo xam ne ah di ñii de lu ñu wax nekkul pour jigéen ñi wante diw mii de ma xam moom nii ak nii la mel tu vois góor aussi mën na ko déglu mu catégoriser ko benn jigéen ne diw mii ma xam de nii ak nii la mel donc muy góor di jigéen ku ko déglu rek mën nga gis ni que xam nga benn nit boo xamante ne peut-être que noonu la mel. Ah, <laughs> wax <laughs> sama moom sama moom garaawul ko bàyyi non buñ buñ ko acapella fii wóorul. <laughs> ah non ko acapella de maa bañ. aja aja dë dëgër fit rek. non da di censurer couplet bi yëpp kon. ñoo duñ ko censurer. acca. bu ñu clash jigéen quoi parce que tey jigéen mooy suñu yaay ñoom ñooy suñuy rak ñoom ñooy suñuy dëkkandoo tey Akatsuki tey boo xoolee ñi ko bëgg ñu bëri même bu dee ay góor a sax mais jigéen ñi aussi ëpp nañ si kon duñ def son juste pour di clash xale yi jigéen ñi pour man li ma la wax sànq rek c'est réalité boo xam ne moo fi nekk mu jigéen bu koy déglu da ngay gis boppam ci góor góor bu koy déglu day day gis boppam ne am na ah, ci laay fi jigéen non en fait bi ñu koy en fait en fait en tant que rappeur en tant que porteur de voix c'est normal aussi boo gisee yéen yoo xam ne sa société nga dénoncé ko parce que ni mu amee ci góor noonu la noonu la amee ci jigéen tey mënuñu foo nekk ci son bi di raayante wala de boo seetlu tey boo dégloo flamme da kontaan tey flamme xale bu jigéen bu ko déglu wala xale bu góor bu ko déglu da ngay kontaan ni mu amee ci flamme noonu la amee négatif flamme parce que tey société bi moo fi nekk en fait ko dindi ci àdduna pour man bu ñu defee projet te waxuñ si loolu noonu li nga xam ne moom la ñuy gis rek moom la ñuy dund rek pour man dañuy fausser li nga xam ne moo nekkoon suñu plan moo nekkoon suñu suñu suñu suñu aussi suñu direction aussi quoi mais jigéen ñi non mais non mais question bañ ñu ko wax de mais en jigéen ñi ñun jigéen ñi lañ fi nekkal xale yu góor lañ fi nekkal mais surtout jigéen ñi ñoom ñoo ñuy déglu ñoom ñoo ñuy streamer tey ñoom ñooy feesal saal ñooy ñëw si concert yi ñooy jënd CD yi CD yi nga gis ni xale yu jigéen ñoo ko jënd waaw kon te duñ def son pour clash leen quoi di leen biggee aussi di leen wax aussi Akatsuki seen Akatsuki la nañ gën a jàpp bu baax a baax baax son bi du pour ñoom <laughs> non non am na beneen son tamit bu mu bu hmm. tey ngeen de boobu Akatsuki nag dañ fait égo ngeen ngeen def mm-hmm. loolu lañ leen. ñu étiqueté. mais en pour man booy ñëw comme mbëru làmb la ah, booy ñëw si benn affaire da ngay ñëw ne maa fi mën. maa fi mën Balla Gaye Modou Lo ñëpp même ci live. Euh, non mais live en fait live mais live moo demee noonu quoi boo ñëwee boo ñëwee si mbir da ngay fekk ngay xool fi gars yi toll. nga ñëw pour yokk si benn affaire te boo yokk benn affaire dafa am nooy duggee te am na nooy duggee bu xawee sedd rek am nga gars yi ah gars yi la sa xool mais boo duggee nga frappé dañ ñaan ñii jar nañoo bàyyi xel parce que ñii kat parce que tey du question de clash life lépp clashante la même yow li ngay def nangam nangam game la quoi waaw life lépp game la lépp lépp game la quoi lépp game la yow li ngay def sax non non tey ngeen dee pour man samp nan la rek ñu ngi fii dañoo ñëw pour imposer wu pour wane gars yi Akatsuki est là Akatsuki mi ngi fi boo tam boo dégloo son bi di nga xam ne tamit Akatsuki tamit mi ngi fi. waaw ngi fi. Euh, ci ci ci album bi. Mm-hmm. tamit ñu euh, discuter un peu flamme gis nañ comme sànq lañ ko doon waxee. yeneen mm-hmm. sonorité est-ce que euh, parce que am na benn benn am na sànq seen ay freestyle li mu doon déglu. Mm-hmm. am na ku ne rab mbalax bi. genre loolu yëpp rab mbalax bi ramba. yëpp hmm? a ngi si biir alors mu am benn coow nag bu xew genre rappeurs yi am na ñu naan non waroo leen def mbalax seen si rap yi wala chose comme ça yéen ngeen ñëw wax ne yéen amoo leen frontière par exemple euh, lan ngeen gisee loolu. waaw bon loolu yaakaar naa yàgg na nekk débat ci ci monde hip hop euh, mais dafa fekk ni tey euh, soo ne Sénégal hmm. ci côté hip hop en am nañ ay instruments yoo xamante ne tey ay ay instruments yoo xam ne Sénégal c'est sénégalais quoi sénégalais moom moom instruments yooyu noonu mais Sénégal moom moom instruments yooyu noonu mais pourquoi pas ñu use ko ñu use ko su suñu su suñuy euh, su suñuy prod ba nga xam ne tey dinañ mën a créer benn couleur boo xamante ne Séné di nga ku ko déglu dina xam ne ah lii sa vient du Sénégal c'est pas jugewul Europe jugewul Amérique jugewul UK jugewul France mais ça nous vient du Sénégal li nga xam ne tey lii Sénégal c'est Sénégal quoi en fait loolu lañu soxla parce que bu ñu amul lool rek mënuñu am identité ci couleur couleur musique ci musique bi quoi mënuñ ci mënuñ ci am identité quoi il faut ñu am benn affaire boo xamante ne tey ku ko dégg dina ne Sénégal en même temps mu nekk nag loo xamante ne c'est dans le cadre du hip-hop mu bañ a génn hip hop quoi mu bañ a nekk mbalax carrément parce que tey mën nga jël ay tama euh, ay riiti yooyu nga nga sample ko ba mu ba mu saf hip hop quoi mais ñun ay artistes lañ ay artistes lañ rab ba mu neex da ngeen waay ay artistes lañ ba pare jël après ñu ay ay ay xoola ay ay ay lañ quoi te gis nga tey mën naa wax ne li nekk si ñun sax mm-hmm. génnewuñu ko quoi li nekk si ñun génnewuñu ko parce que album bi ñu waroon génn daa am direction bu mu laajoon mm-hmm. moo tax ñu topp ñu topp direction boobu ba génnee li ñu génnee quoi donc am na leneen ak leneen ak leneen li nekk su ñun génneeguñ ko mën nañ woy wala mënuñu woy gars nañ xaar rek dinañ gis quoi parce que tey li ëpp solo mooy nga xam li nekk si yow ba pare nga nangu koo génnee nangoo liggéey comprendre nga. Mm-hmm. tey euh, kenn judduwul woy kenn judduwul rap mën nga am talent mais talent boo ko liggéeyul du génnee du feeñ gars am nañ talent de dañ kaa génneegul mm-hmm. wallaahi. dañ kaa génneegul quoi te nit ñi nit nit ñi dinañ gis liggéey bi commencé gul sax. ah ci euh, titres. Euh, du dara Sori mën na def trente titres loolu du dara xalil mën na def 30 titres Talla mën na ko def Element mën na ko def 30 mhm. 15 titres ci cinq personnes ci 4 personnes loolu du dara ce xam nga gars nañ xaar rek. waaw wéradi ba muy doogee génn ne gars yi nañ leen comme nañ leen partagé son bi yooyu noonu nañ leen nañ leen euh, dañ leen jàppale wala boog ñu xaar leen genre communication du du moo bi bi ma wax ni ngeen utiliser mais genre euh, da ngeen doon wax gars yi invité leen pour ñu jàppale leen wala boog ñu xaar leen yéen a ngi ñëw genre yooyu est-ce que gis nga ñu leen support am ñoo xam ne euh, ci hip hop Galsen bi lañ nekk déjà jënd nañu album bi est-ce euh, bi nag gis nañ ci ay grands yu bëri yi nga xam ne ñu ngi doon soutenir album bi comme ay grand xumaan ñoom dañuy ñëw sax ba ci biir studio bi di ci jàpp euh, ay ñoom grand Fla Ripper ak ñeneen ak ñeneen ah, ñoom en fait ay grand la yoo xamante ne ñun war nañ leen mën a jox respect quoi. parce que ñoom def nañ ci hip hop Galsen ba defaale ci nouvelle génération bi nga xamante ne ñi ngi ñëw loolu respect bi dañ koy jël quoi dañ koy nangu euh, ci tamit ni nga xamante ne am na beneen phase boo xamante ne boobu tamit ñun artistes yi mun munuñ ci sori wala munuñ ci wax lu bëri parce que staff bi ak euh, manager yi ñoom ñoo ñoom ñoo yor liggéey boobu noonu quoi mais nag dans tous les cas c'est que album bi ça a été travaillé durant deux ans deux ans yooyu noonu la ku nekk def ci biir projet bi comme ni ko Element waxee dafa amoon direction bu mu laajoon te si direction boobu noonu lañ topp de A à Z ba yàlla def tey jii ñu génnee projet bi mais dans tous les cas aussi am na yeneen affaires yoo xamante ne war nañ ko mën a indiwaat ci leneen ak leneen même euh, si cadre communication bi war nañ def euh, ay tournée région commencé nañ ko sax commencé nañ def tournée région yi war nañ def aussi sortie concert yooyu noonu ak leneen ak leneen quoi pour accompagner projet bi. waaye ak ay ak ay clip ak ay clip yu bëri incha allah. Mm-hmm. album bi ngeen am oh. loolu lañ bëgg ah clip album bi yëpp. Mm-hmm. loolu lañ bëgg incha allah. mais seen génération nag ñoom ñu ngi déglu album bi ah dégluwul nag dañuy kii de. pour ñoom ñu jënd album bi. Mm. génération génération waaw génération. waaw booy ñu ngi jënd ñu ngi jënd kay. ñu ngi jënd. ñu ngi jënd booy ñu ngi jënd album bi ñu ngi koy support ñu ngi koy soutenir gis naa sax xale yi di ko snap ne woon di ko tiktok di ñu ko envoyé quoi non ñu ngi jënd gars ñu ngi si. bon ci côté côté bi euh, côté support album bi muy wax jii bon am nañu ci am nañu support album bi am nañu supportul album bi comprendre nga. parce lu génn tamit gars dañuy am ay ku sa xalaat. en fait Sénégal euh, artistes yi sénégalais tey amaguñu mentalité boobu comprendre nga. mentalité. wu gis naa ay boo yu def lu naay xaama partagé ko. mais wéridi loolu force la woon parce que waa France ñoo di ko partagé mais tey en fait waxuma côté boobu sax. parce que tey euh, damay nangu ne toujours rek ñii dañuy nangu ñeneen ñi duñ nangu quoi comprendre nga déjà ñun tey biñ koy def. bi ñuy génnee album bi euh, visé wu woon ne noo kii ñii ak ñii dañu war a partager album bi wala dañ si war a jàpp si communication bi wala dañ war a def lii wala dañ war a def lee comprendre nga te tey man je pense que ni euh, affaire yu bëri yoo xamante ne tey kenn du la ko defal da lay dimbali quoi da lay dimbali day tax ngay defal sa bopp donc am nañu ñu partager am nañu jàpp am nañu si jàppul tamit mais anyway jàppaluñ si kenn dara mooy l'essentiel que ni mooy gëm nañ suñ bopp. te ñoo ngi ci quoi te parewuñu sax pour bàyyi incha allah. Mm-hmm. alors gis naa si trois featuring. yi ni mu demee yéen bëri ngeen ba pare loo leen doyee featuring <laughs> alors featuring yi nan la nan la ñëwee tamit bokk ci album bi jàpp ci bu baax. non pour man featuring yi juste la rek ah feeling la rek amul benn featuring boo xam ne dañ ko dañ ko dañ koo forcer. voilà parce que en général loolu la ñuy posé quoi te doo leen fitiri nga diw doo leen nga diw ni nga ko waxee ñun déjà quatre lañ kon bu ñu kenn raxee rek day gën a gudd quoi <laughs> mais fitiri gii nii feeling la dañoo fil juste dañuy teg biir yi ñu fiil artistes yi wala soit des fois comme Bako Bako mooy son son crush bi dafa ñëw dugal dugal teg refrain euh, parce que ci diété artistique yi la euh, diété artistique yi la bokk mu ñëw dugal refrain ñu ñëw ñu déglu ñu ne waaw lii nice ah léegi si ñu teg couplet yi featuring ak Edmo featuring la featuring ak Badou de Wise bi ñu gis featuring la parce que Edmo passé la dëkk Badou aussi passé la dëkk pourquoi pas ñu mu ñu def album ba pare te aussi duñ ci boole ñeen ñi nga xam ne biir passé la dëkk wala ñenn ñi nga xam ne aussi jege nañu parce que am nañ feeling ba pare bi am feeling bi du ay avant projet la woon déjà bu ñu defee feeling bu ñu defee bu ñu defee sound yi aussi c'est normal. waaye mm-hmm. c'est normal waaye c'est normal alors. Euh, foofu fu ñuy jeexalee nag peut ay question yu yu yu drôle la yoo xam ne bëgg naa leen ko laaj kuy kuy gaaw a fàtte texte kuy compliqué ci bind ku euh, bëgg naa leen laaj yooyu yëpp ko parce que ñeent ngeen est-ce que neex na travailler ensemble est-ce que liggéey bi dina gaaw quatre personnes. neex na kay moo gën a gaaw sax. Mm. waaw. nu muy demee liggéey bi. fat fat le moment bi ñuy teg prod bi tak studio. sóori day jékki rek tëll benn ruqam xalaat benn moo bu xalaatee benn moo rek xalil moo ko taf-taf ñu xool na lañ koy structuré génnee refrain vite fait. yéen ku dàq rap. ñun jaagaay ba dàq rap. Ah, Akatsuki SN. non non yow dàq rap. <laughs> <laughs> ndaw yooyu li def nii rek rab la. non kenn euh, mais xanaa dina am kenn koo xam dina ñëw wax rek nga ne waaw. kaay ma wax la kàlla. Hmm. Akatsuki SN. yaa ngi la. waaw ah, boobu moo mun kii. Eh. <laughs> mais est-ce ngi bàyyi xel aussi nit ñi ñu leen teg bët genre groupe yi du yàgg du lii du lii et préjugé yu ñu xam ci yéen wala rumeur waaw ñu koy bàyyi xel parce que bu ñu ko bàyyil woon xel tey peut-être ñu duñ du ma ne duñu yegg fii ñu yegg parce que Sénégal yoo am tendance booy commencé dañ ñaan la ba xam ba xam doo leen tas pour man ñoo ñëw bëgg nga tas ki ñaan la ba xam doo leen tasee pour man loolu moo tas groupe yu bëri parce que le fait que nga ne nit ba xam doo leen tas nga si xelam ci boppam ne déjà da nga war tas ba pare te lii du sëy quoi tamit <laughs> du sëy bu doon sëy tas na bu yàgg aussi quoi gars yi li may wax toujours rek dañ jàpp ne ay booy lañ dañu gën a jàppale gën ñoo dimbalee parce que Akatsuki bu gagné pour man Sénégal mooy gagné pour man culture urbaine mooy gagné pour man musique bi mooy gagné pour man passer mooy gagné àdduna mooy gagné parce que boo gisee ay booy def benn affaire nice na kaay jàpp si mais bul focus ne ay ñii ay groupe yu bëri tas nañ kon suba dañuy xaar ngeen tas non non ah, Akatsuki xaajagul bay commencé sax eh, na na ngay xaar bu baax incha allah question est-ce loo xam ne def na leen ko mu metti leen loo xam ne peut dem ngeen envers moom ñu dàq leen wala xaar loo ba 17 heures ba est-ce que mës ngeen dund loo xam ne euh, si hip hop bi daf nañ leen ko metti leen. ci hip hop bi ngeen xaar dem euh, France 24 pour tontu ko fa <laughs> parce que yéene naa leen fukk. waaw ah, amiin amiin dinañ dem France 24 sax incha allah mais bon euh, loo xam ne metti nañ carrément. ci hip hop bi franchement nga toog lii metti la bon euh, li ñuy wax daal man li ma mën a wax loo xam ne méttiwu ma sax mais loolu c'était en 2017 quoi ñoo gagné woon benn saay fa nag gars yi war ñoo fay ñu toog di xaar. <laughs> gars ñu fay 500000 xam nga ñu toog di xaar rek chaque jour ñu ñaxtu si gars yi bu ñu fayee suñu 500000 yi bañ def ci lii gars yi bu ñu fayee suñu 500000 yi bañ def ci laa parce que dañ foogoon ne bon. affaire yi day jeex rek une semaine ñu fay ñu 500000 ñu dem noos nag par yàlla dogal affaire yi di durer durer ay un mois kenn woowuñu deux mois kenn woowuñu trois mois kenn woowuñu affaire yi métti ñu nag parce que voilà quoi moment boobu noonu ci période yi ngay toll mooy gañe nga cinq cent mille waaye gañe nga xaalis bu bëri ci hip hop bi affaire yooyu noonu quoi bon voilà quoi lu tax. daan nañ jékki sax def benn vidéo xaw a cokkaas sax eh, di saay fa kenn du la fay naa nga mais ama après da xam ne lii leçon la quoi te affaire yi yombul hip hop moo yombul quoi tey nit dina am yéene tegal la cent milliards te fekk cent milliards yooyu noonu tey di da koy jéema wut ba sonn après day të mën na ñëw jox la benn dix million après da ngay comprendre quoi mais n'empêche fayoon nañ ñu xam nga après fay nañ ñu parce que duré na un naa mais fay nañ ñu te loolu rek moo ci am solo quoi. d'accord nominé nañ leen si Galsen Youth Awards. yaa yaa. alors yéen gëm ngeen compétition bi. bon par rapport aux autres. bon euh, waaw waaw. juste que xam nga rek ay soutenir ay soutenir rek nañuy soutenir suñu suñu frère buy def benn affaire c'est ça ñu ngi ci meilleure révélation yi ñu ngi ci catégorie boobu bon waree fa nice. nice alors nan ngeen di tàggatoo doon seetaan ak fan si amul classe gis nga relax amul mhm. ay ñu si ay ñoom baara di leen sonal foofu noonu ay ñoom pap siidi non relax bon ñu ngi remercier ñu ngi lay remercier si invitation bi xam nga di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan di leen remercier bu baax di leen wax ni que ki génnee na album tu vois ay booy yu ndaw nañ ñu ngi soogee débuter suñu carrière mhm. donc nañ si jàpp ñu dem ñu jënd album bi c'est à mille francs seulement et que album bi disponible na si plateforme de téléchargement yëpp Deezer Spotify Apple Music disponible na aussi ci site néegu rap music group point com aussi am na benn application bu tudd Boomplay boo xamante ne c'est comme Audiomack tu peux écouter les sons là-bas sans pour sans nga abonné par mois comme ay Deezer et Spotify. Mm-hmm. donc noonu lañ mën a def pour jàpp si album bi ci stream yi. ak si jënd yi parce que neex na trop xam nga nga commenté ne booy dañoo aay booy dañoo mën a rap mais nga jënd CD wala nga dem jënd album bi ci plateforme yi loolu moo mën a jàppale booy donc di leen wax nañ ñu xaar affaire yi ñu ngi soogee commencé concert yi ñu ngi ñëw le 6 am nañ show hôtel Onomo incha allah le 6 novembre e ñu ngi waajal tëgg aussi yeneen concert yoo xamante ne non seulement parcelle fu ñu dëkk aussi mais ci Sénégal bi yëpp bëgg nañ def tournée Dakar Diourbel xam nga Thiès Ziguinchor Kolda fépp fépp foo xamante ni nit nekk fa nekk na fa di bëggee hip hop. bëgg nañ ñëw teew sa koñ xam nga dafa show pour pied universal mu universal à travers le monde incha allah. Sénégal dégg naa amoon na benn kii bi ngeen ko waxoon est-ce que doon ko reprendre at nii. waaw loolu son la woon loolu son la woon léegi ñun Seneweb dina ngeen dugal ko fi dugaloo la fi ñun tamit. Eh, eh, album bi am na Seneweb. non Sénégal waaw waaw waaw loolu man maa ko dugaloon c'était en 2019 mais finalement son boobu gars yi choisir wuñ ko woon parce que bi ñuy def choix pour euh, war a ci album bi choisir wuñ ko woon non dama ne woon suñu histoire dina yegg ba Sénégal ah, <laughs> après gars yi ne ma après gars yi ne ma ay milliards <laughs> milliards <laughs> <laughs> waaw ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu sama gars yi sama ndaanaan yi. xaar xaar mu nuyu gars yi. saa may wax rek nga ne dama mel ni palaato làmb laa nekk ko <laughs> non defal naag euh, am na tur ba wax sànq Pape Sidi Fall est-ce que xam nga ne da am xaalis hmm. Pape Sidi. waaw nu mu amee xaalis. Pape Sidi parking la yor. parking bu oto. waaw. waaw. <laughs> Ah xoolal Pape Sidi parking plateau am naa ma non danga weex ay xanaa yow amoo diw ak ah, xam nga waaw nee na damaa am beneen liggéey maçon laa quoi ma ne <laughs> <laughs> non mais moom daa am parking. parking oto la yor. Eh, Pape oto bi muy non bàyyil ma feeñal ko am na lu gën a kii bu ko defee xam nga Pape ku am ordonnance demal si moom. <laughs> <laughs> bàyyi ma yem foofu rek bon euh, d'abord dañuy nuyu El Hadj mi nga xamante ne. suñu DG wu DG waaw suñu DG wu suñu PDG wu DG la xam nga xam ne tey euh, presque euh, début semaine bi yëpp moom la ñuy àndal ci ci oto moo ñuy jël si moo ñuy woo booy fu ngeen ne xam nga amul problème maaris lépp moo ñuy yóbbu fu ne donc ñu ngi koy bégee bu baax a baax a baax franchement parler quoi yeah bon di li leen nuyu bu baax comme ni ko Sori di waxee di nuyu manager yëpp xam nga ñoom Karim ñoom Marginal xam nga ñoom Elas ñoom Bress ñoom euh, Felipe xam nga ak suñu yaay suñu famille yi nga xamante ne tey des fois dañuy seetaan si télé bi sax gis benn booy bu ñu wax loo xamante ne waaw mooy loolu noonu dañuy gëmloo que ne ah monde bi ngeen nekk de seen monde la donc voilà quoi l'essentiel mooy à chaque fois bu ngeen xëyee dee leen si jëlee leçon rek donc voilà ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa néegu rab yëpp staff bi yëpp ñi nga xamante ne ñooy jàpp si liggéey bi yëpp ñoom Bress ñoom Assou Bintou voilà quoi freestyle bi la lañu war a freestyle sax dootuñ ko defaat hey noxa ay feeg du bakkaar dootuñ ko defaat ay di leen tànd par quatre dootuñ ko def faat noo ko ay feeg du bakkaar seen rappeurs yi xamuñu gaat la lu joloo na ku ne merci beaucoup mais xam nga rappeurs yi daw jigéen ñi pour ñoom amuñu dara si rap dañuy poser question yu bett tane ah. na kii kon seen gars ne leen ñeme jigéen ñi nag bu ñu leen woowee ñuy décrocher alors waxtaan bi nag c'était pour amul woon clash dama bëggoon émission boo xam ne amul amul fàttali fii. clash nga kii wala kii. def loo xam ne nag ñëpp dañ ko seetaan et puis ñëpp dinañu apprécier kontaan nañ ci. effectivement merci beaucoup kontaan nañu aussi kontaan nañ bu baax a baax. merci beaucoup merci beaucoup.